auzubillahi mina seytaani rajiimi bismillahi rahmaani rahiimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonentam ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye man nekk ñu leen di saar di leen ñaanal jàmm gudd fan wér xéwal yaa defar àdduna ak àlaaxira rawatina yéen ñi abonné ci Daaru Salaam si faaw yoo xam ne Daaru Salaam si faaw dana seet bu la seetlee wax la sarax wala wax la sa cangaay fa ma dem defi ko ba nga dem defi ci ko tey nag dañuy indi secret basmala ci wàllu kaaraange sécurité da bind bisimilah rahmaani juróom-ñaar fukki yoon soixante dix li muy li mu kun kun mooy jàpp soixante quinze mooy soixante dix kaaraange nag dafa baax ci yaram ndax nit ki yaramam mën naa taq loole mu def fa fu ne mu dem fa ci wàllu ubbeeku te yaramam rek moo setul waaye yaram bu setee ubbikaay day yomb yaram bu muccee ci yenn cat yi ak yenn làmmiñ yi ak yenn taqaay yi ci bàkkaar day yomba ubbi waaye yaram wu taqati bàkkaar nag wala mu taqati cat walla bët ubbi comme dana xaw a jafe kon da fexe mucc boo muccee nag bu pare nag daal di daal daal di fexe lu ubbi nag ci kàrtu suñ borom lii nag day setal yaram mooy da bind bisimilah rahmaani rahiim yi soixante juróom-ñaar fukk ba nga ko bindee juróom-ñaar fukk pari nga de wut xobi ngeer xobi ngeer ngay wut loo baax na nga boole ko moom nga def ko saabara ba pare nga xorom defaat ci ko nag juróom fan nga koy sangoo kon na ngay bind bisimilah rahmaani rahiim bisimilah juróom-ñaar yoon ginnaaw bi nga ko bindee juróom-ñaar fukki yoon nag. da ngay dem wut xobi ngeer bi nga wutee xobi ngeer ba pare nag da ngay dem wutaat xorom def ca biir saafara sa bu ko defee nga sangoo ko juróom-ñaari fan ci kàttan suñu borom tabaaraka wa taala lii ku ko def lépp lu mu fekk ci yow ci yaram ci cat ci wàllu gàllankoor ci xeetu bët wala làmmiñ wala lépp lu yàq yaram rek da koy dindi ci kàttan suñu borom ñoo leen siyaar baax di leen ñaanal jàmm ak gudd fan wér xéewal yaa defaraat nag àllaaxira wa salaamu aleykum wa rahmatullaahi